mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci seen émission wax sa xalaat tey li ñuy waxtaanee mooy thème bu ñeel wàllum mercato rawatina bu Kalidou kulibali ci accord bi nga xamante Naples ak Manchester City am nañ ko jamono bi lan ngeen ci xalaat ci destination prochaine boobu euh, bu Kalidou Koulibaly Mouhamed Lamine Diop nuyu naa la. fay naa la na fi di nuyu euh, internet yi. annoncé léegi ki nga xamante ni moom mooy Kalidou Koulibaly ak mercato bi. donc moom la ñuy waxtaanee ci euh, thème mu tey bi est parce que accord trou trouvé entre Manchester City. Mhm. et euh, avec le joueur mais plus avancé avec le club aussi avec Naples donc moom la ñuy si mercato 78 150 74 72 78 150 74 72 ngeen a euh, daal di participer ci émission bi wax seen xalaat itam ci mercato euh, Kalidou Koulibaly bi comme ni ñu koy waxee rek bokk na ci dossier yi nga xam le mercato bi ça fait vraiment deux saisons wa ngi nii ñu ngi waxtaanee. Euh, destination wu Kalidou Koulibaly fan lay jëm fan lay jëm mhm. Manchester City nak mon moo club bi nga xam te moom insister mhm. euh, ci ci ci ci Kalidou Koulibaly batay euh, mu am accord bo entre Naples et et et Manchester City et on, on nous demande souvent un euh, accord officiel mais bon dans le dossier Kalidou Koulibaly Balangé officiel <laughs> c'est tout un problème mais on peut dire que les deux sources crédibles comme les euh, médias voilà la Gazeta de Sport nekk euh, Italie Nous avons un Mirror aussi du côté de l'Angleterre Voilà, ay journalistes spécialisés spécialisé en mercato en tout cas des sources crédibles ñi ngi wax que accord c'est estimé à 70 millions d'euros euh, parce que nous avons ni Naples wàññi woon na bu baax li nga 100 millions d'euros. sans oublier que mhm. Manchester City a tenté plusieurs fois de le recruter parce que nous avons fait une def de formulé 100 mhm. millions d'euros parfois 90 millions d'euros plusieurs fois, donc 3, 3 ou 4 fois en tout cas, donc pour recruter Khalidou Koulibaly. Donc euh, il est, à un moment donné, il était très proche aussi du PSG, parce que ce n'est que une période. PSG Bougon recruté ko avec le départ de Thiago Silva. Mhm. donc tey euh, comme ni dit Manchester City a avancé le dossier et que euh, on a vu que peut-être Guardiola s'est impliqué peut-être parce que Big a en reconstruction pour la saison prochaine et que Manchester City de ambition par rapport la Premier League par rapport la Ligue des Champions Mhm, mi ngi noonu li indi accord bi itam bokk na ci euh, peut-être jamono gi euh, Naples taxaw na temb xam ni euh, mi il faut mu jaay ko parce que côté finance aussi Naples a besoin d'argent surtout pour trouver ki nga xam te moo di moo di remplaçant am parce que accord itam am na entre Naples ak Lille pour ñu recruter un défenseur central mhm. mais Naples bu deful bu gaaw ci dossier boobu noonu dafay retrouver foofu un concurrent ku ci mel ni Arsenal itam positionné wu na foofu ba jël benn offre formulé ko pour euh, le jeune Lillois qui est brésilien Gabriel euh, donc il faut que me tout euh, Diaye Koulibaly et que aussi euh, dossier bi dem na ba fa nga xamanté bu Naples gawantou Diaye Koulibaly li nga xamante moo valeur marchande du joueur bi fay wati parce que gis nañ ni c'est pas la meilleure saison de la carrière de euh, Kalidou Koulibaly da ngay da fa melni au fur et à mesure que muy resté Naples li nga xamante moo di carrière am chuter question de niveau parce qu'on a vu ses dernières prestations c'était pas le top du top d'ailleurs li nga xamante équipe de bu Série A bi bokk ci donc c'est un jour bo xamanté boko ko gaawul jaay finalement ont euh, dafay fait sans sans sans compter le contexte. Hein, mhm. de la pandémie. les mhm. clubs nga club ils sont en difficulté et jini euh, le fait que Naples dem ba d'accord 70 millions d'euros c'est parce que. Mhm. c'est parce que ñu ngi ci période Covid mais Naples à un moment donné 100 millions d'euros la stack oui. yow ci laa leen nekk. mënoon nga ñëw bàyyi bañ dem suñu digg émission. mais mënoo leen dem si digg émission sama xat. yow bu baax. sociologue añ nga ba suuf. na fi bàyyi di ma ñu programme benn benn minute précise nii benn instant précise euh, précis plutôt nga ni yow déedéet. il faut il faut nga bousculer lépp. léegi ban instant ma programme laa jël bal bi mbëkk la ko benn yoon nga jéem a capté. waaw waaw war na mën a nekk de lépp war félicitation félicitation. merci beaucoup. Ah? la nga seede ah mais mais du ko humilier waxoon naa leen du ko humilier de. non man 3 heures laa la wax. waaw <laughs> <laughs> bon pour pour li nga xamante euh, euh, démb par rapport ak émission bi pronostic bi 3 buts à 0 donc sociologue moom moo ko trouvé ci victoire u Bayern boobu face au euh, face à Lyon. acum léegi sama bal nu muy demee kañ laa koy jël si loolu rek laa bëgg a xam. waaw léegi yow xam lu ñuy def sociologue. dina la contacter hmm? ci suuf. bu émission bi jeexee dinaa la woo wax la fan la. naka la ak nu muy demee. waaw baax na la ngeen am sama numéro. waaw baax na numéro yi ma leen di ma leen di wooyee bëri na de. ah yow xam nga yow yow sa dara leerul quoi. message bi rek. waaw dinaa leen bàyyil message sama beneen numéro. numéro bi voilà. voilà bàyyil ñu message comme ça après ñu woo la. dinaa leen ko bàyyil amul benn problème léegi tey lii débat bi man la mën a participer mbala gaale saaxoo wala ko ne man maay gisaat. a d' accord ci kanam Koulibaly <laughs> la ñuy wax ak accord bi nga xam te City ak Naples trouvé nañ ko 70 millions d' euros foofu mu dem. waaw d' gis nga jamono ji jamono koro koro bi moom ku fi gis 70 wala 80 ku ne di nga mhm. ñëpp nag laa équipe yu mag yëpp nag. Mhm. Ah, voilà parce que eh, Guardiola

parce que nit koo xam ne moom daa dem wuti ji benn ndox nit ku demoon français dem wuti ji benn Sénégal yàgg-yàgg yow dañu ñëw Sénégal investir fi mm-hmm. donc Garcia bi nekk ñor na Barça moom koy waxtaan pour jël ci ko mm-hmm. donc moom muy teel a jël précaution am maanaam am beneen axe quoi muy Koulibaly bu ñëwee dina def renfort ci moom trop mm-hmm. voilà donc parce que fu mu dem bu ñëwoon Barça day paate bu ñëwoon Real day paate moom fu mu dem day paate loolu c'est indubitable kenn xalaatul wala di am xel ñaar naan ndax ban lañ koy teg loolu loolu moom kenn waxaale ko sax. dëgg la voilà fu mu dem day paaka nga xam ne am na place ba ak Real waxuma la nag beneen club. Mm-hmm. voilà fu mu dem moom mooy nekk ci patron dépense bi force la loolu. Mm-hmm. waaw gars yi ñoom doom naan bu nekk bu nekkoon tubaab la heure bii ballon d'or la ñuy wax affaire yooyu noonu. Mm-hmm. voilà mooy loolu moom moom mooy meilleur défenseur mondial ko ñu bëgg ko ou non. Uh-huh. Voilà, parce que Van Dijk lañ ko doon jëkkaleel mais malheureusement que Koulibaly wane na carrément ko du moroom Van Dijk. mais Van Dijk moo nekk ci kanamam. parce que Van Dijk équipe bi muy joué moo ëpp ay performance yu muy def. donc waaw ñun ñun sut nañ ñun sut nañ dafa Van Dijk nekkee rek sut nañ dafa Van Dijk nekkee sut nañ nu muy marqué rek. di daw naan ay marqué ma Messi yow arrière gis nañ nu muy marqué rek gars gis nañ faa bi de. ku dul song lu ñu lay duutee. ku dul song. lu ñu lay duutee. Non, mais quand même. Euh, peut-être, peut-être, peut-être tu précédente saison, mais pour cette saison Simon, hmm, on ne peut pas les comparer tous les deux. On parle d'accord. Hmm. Que le valet mhm. D'accord, Inch'Allah. <laughs> Merci, sociologue. Ok, merci à vous. Mhm. Euh, je précise aussi ci accord bi nga am nañ ko euh, Koulibaly moom mi négocier pour un euh, contrat de 5 ans avec Manchester City je pense que loolu a tout lay doon parce que Manchester City beaucoup dépenser autant d'argent toujours ci jour boo ans moom tamit du a jël un contrat yoo xam te un gàtt mhm. après muy delluwaat voilà donc donc cinq ans effectivement bir, effectif Manchester City et tout ce que City prépare pour la saison prochaine je crois que les est mhm. conscient que âge du ko fi xaar. Mhm. et que toog na lu yàgg Naples quand même c'était le moment de de. d'accord jërëjëf. Ah. Euh, di nuyu. ñu lay fay bu baax tur bi naka la ak fooy wootee. c'est Habib Sow Sow depuis Thiès ci émission wax sa xalaat ñuy waxtaanee li nga xamante ne nii moom mooy transfert u Kalidou Koulibaly euh, ci Manchester City. waaw di leen remercier ci émission bi di leen encourager aussi. merci waaw di wax ni yéen a ngi wax ak benn citizen depuis deux mille dix ans. Hein. Mhm. Hmm. oui. d' accord yow waxtaan ak yow dina neex. <laughs> construction bi noo ko gisee Nathan Ake ñëw na pareegoo leen ne ngeen na Koulibaly ñëw. bon je vais dire que si reconstruction équipe bi. Mhm. Guardiola ci trois ans yi mu def yëpp. Mhm. mu ngi utiliser ay joueurs. mais jusqu' à présent amul équipe bi mu bëgg mun naa ne. Mhm. parce que boo xoolee ren la City nar a tënd ci histoire am joueur gën a seer. Mhm. Mhm. muy Koulibaly parce que instant Daniel Obi cent dix millions de dollars. mu nekk quatre vingt millions de dollars. te ci histoire club moo gën a seer. coûté na club millions d'euros Boris compris. pour wax ni tey jii Koulibaly. ñu ngi koy jëlee aussi ak âge boo xam am na vingt neuf ans aussi. Mm-hmm. loolu aussi tamit signe la parce que soxla na kon défenseur bu am maturité ak expérience. Mm-hmm. Mm-hmm. boo xoolee à chaque fois Guardiola day day miser wu ci jeune bu bari te cette année ci bu surtout ñàkkee tamit xam naa ne ligue des champions bi. défense ci moom aussi. waa ak ci ay réglages yu bari yu muy def souvent surtout en défense. système bi. voilà. parce que boo xoolee ñu ngi joué ak Fernand di ñoo gagné match bi comme troisième défenseur mooy wane ni li mu yor sax gëmu ko moom voilà loolu nekk na ci pas yi à chaque fois day koy ay bricolage parce que amul li mu bëgg carrément quoi d'accord yenn match yi da ngay gis day lancer message directeur sportif pour wan ko lii laa bëgg lii moo manqué mais loolu boo nekkul sportif de mënoo mënoo ko comprendre aussi di souligner que ni Koulibaly mën na réussir si parce que jour bu ñëmé jël aussi des relances ak pied droit en même temps pied gauche voilà wala wone ni gatra sur pied mom défenseur bi wara mëna relance pied droit pied gauche et aussi parfois yow défenseur central da ngay mëna mëna def ay réglages côté gauche mëna gérer latéral aussi lu bëri bëri boo seetaanee masam à chaque fois day risque bi nga dem sax di def wati centre. Mm-hmm. ba pare ñeme oh. na jeu bi aussi défense. voilà voilà voilà ñeme na jeu bi quoi loolu moom moom ci côté boobu man je pense bien que ni mën na réussir mais tamit li mu ko munti jëndee tamit su deful ay pro tamit mën na retrouver sur le banc. parce que course boo xam ne ay performance lay jugé jour bi malgré que loolu mooy cher boo wul sa bopp ci terrain bi mom dom la bi gars di wax nak dafa rasis ak yoy man yag na ko suivre mais goma lolo aussi parce que si kay ta bo ku ko lancé gatcha la aussi au niveau du passé d'accord voilà mhm. d'accord jaajëf ma ngi len di nuyu encore di len féliciter merci beaucoup alors di len encourager aussi mhm. merci ok jërëjëf merci beaucoup on sait que ni euh, défense su City bi saison bi passé mom mo gëna indi ay jafé jafe mhm. euh, par rapport ak euh, saison ou saison City bi parce que moi ils ont marqué plus de 100 buts. Mhm. euh, 100, deux je pense et que 81 points donc la am euh, donc dafa nek lo xamanté défense bi en fait mom mo gëna subir mom mo gëna a indi yenn problème yi nga xamanté motax ba City mënatul won dab Liverpool. allô salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va waaw Wio Sport la. waaw ah, na xam. ngi sant bu baax tur bi naka la ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Mamadou Ba. Mamadou baax d'accord maa ngay wootee Thiès. Mhm. Mhm. waaye Moussa Gnass laa dégg. d'accord yaa ngi ci biir émission bi. waaw maa ngi doon xool émission bi léegi léegi nii ci suma téléphone. waaye nag dama ko coupé ma woo la. Mhm. Mhm. ndax su ma coupé mënuma la woo. man nag damaa yàgg a suivre euh, Vieux nag. Mhm. suba suma xëyee ba pare damaa bind ci Google Vieux Sport ma xool seen résultat. mu ngoog noonu li nga def la. Eh, léegi day ci boole rek day ci boole di di di dem jëndi décodeuru canalu 1000 francs rek. dinaa ko def. waaw comme yow yaa ma ko di tey dinaa ko def. waaw comme saa ngay seetaan seetaan match match yi championnat yi ubbeeku yi. <laughs> d'accord dinaa ko def. incha allah ndax man daal maa ngi sant yàlla maa ngi leen sant ndax lu ma xam ne Sénégal rek xam nañu yéen la daal. d'accord merci beaucoup. jërëjëf euh, transport Kalidou Koulibaly. Mm-hmm. pour man baax na loolu. Mm-hmm. ndax euh, Kalidou yàgg na na fii. te eh, mhm. allo. allo oui moom la ñuy déglu. te eh, te eh, Kalidou Koulibaly actuellement. Mhm. c'est la meilleure défenseur du monde. d'accord. moom nu mu liggéey ci terrain. Mhm. mosuma gis défenseur ku jege ak moom ku dul ba kii Virgil van Dijk. moom nag war na dem su fekkee City baax na ci moom. su fekkee Sénégal la baax na. te te leneen ñi maa ngi leen ñaan yéen. équipe U19 euh, ci Coupe du Monde bu passé ñoom Alpha Jim ko Moussa Ndiaye. lu mhm. mhm. bëri léegi dafa réer te man ci yéen rek fépp bu doon ci yéen te du ma gis dara. Mhm. loo ngeen xam si ñoom ngeen indi ko ñun ñu loolu la loolu laa bëggoon wax nag. d'accord jërëjëf merci ñu wàccee su baax. waaw ah, jërëjëf. numéro numéro bi seen bi su ma naa leen am. waaw saa yoo woote ci émission bi di ñu jot. boo duggee ci émission bi numéro bi ngay woote ci émission bi. d' accord dinaa dinaa ko dinaa dinaa leen woo incha allah jar ngeen jëfandikoo. d' accord waaw 16h la 16h. bu ngay woote 16 ah, d' accord 16h incha allah dinaa woo dinaa woo 16h jar ngeen jëf. ñu enchaîné ak ci commentaire yi. maa ngi na woote allo. allo. oui sëñ bi. na nga def. ça va alhamdulilah tur bi naka la. Ibrahima. naka. waaw Ibrahima xanaa sieste bee la jàpp. ah sieste bee la jàpp Ibrahima da ngay wàññi retour bi nga déglu ak sa télé. Mhm. Ibrahima.

waaw waaw bon dama gisoon benn kii la da ngeen di par rapport ak Kalidou Koulibaly transfert am bi quoi. waaw. voilà ci boobu laa ci boobu laa bëggoon euh, intervenir je ne sais pas ndax maa ngi ci temps bi wala dama tardé tuuti je ne sais pas. yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. <laughs> ah ok très bien parce que nag ma de suivre quoi dama ñu gisoon kii bi mais après dama déplacé bi en direct. oui ah, oui bon donc man je pense hein d'après lu ma yaakaar information yi ma am quoi am na transfert bu pare a soixante dix millions d'euros. Mhm. léegi juste euh, léegi peut-être déplacement moom bi jógee Napoli dem euh, City Modeste quoi mooy dernier réglage yi mais sinon waaw mhm. waaye waaw mhm. Mhm. donc boobu laa amoon li may parce que question boobu laa gisoon ko ndax transfert am bi am na wala amul wala yooyu. d'accord léegi yow lan xalaat ci transfert bi. transfert bi c'est possible c'est une très bonne chose parce que Kalidou Koulibaly ko xam xam na ne c'est un c'est grand défenseur mm-hmm. c'est quelqu'un ki nga xamante ne vraiment wane na Italie ne naka la na naka la mel ci football quoi d'ailleurs dem na daaw moom moo jëloon meilleur défenseur mm-hmm. Italie quoi mm-hmm. donc euh, c'est aussi normal mu dem euh, dans un autre championnat bi nga xamante ne Angleterre la ñëpp xam mel dafa voilà très bien donc c'est normal mu dem Mhm. et eh, avec les soixante dix millions d'euros je pense que je mhm. pense qu'il le mérite la bu dee ëpp ko mais en tout cas daal soixante dix millions soit mu ëpp ko wala foofu lay mën a toll c'est un grand défenseur et il mérite d'être euh, là où il est aujourd'hui quoi d'accord voilà loolu laa am li may wax quoi waaw jërëjëf merci jërëjëf merci beaucoup voilà mhm. ok di leen fàttali émission bi euh, Canal Plus Sénégal mon ñu accompagné Canal Plus Sénégal nag instant bi dafa nekk en promo jusqu'au 31 août décodeur bi c'est à partir de 1000 francs ngeen jënd ko euh, dadi abonné wu notre am chaîne sport yépp euh, mëna a li nga finale, finale Ligue des champions bi Europa League bi wala ngeen mëna suivre li nga xam championnat yi wara a lu ci championnat bu France championnat bu Angleterre wala sax Série A bi bien vrai que Série A bi saison bi ñëw moom duñ ci concentré bu bëri parce que xanaa Koulibaly dina dem j'espère bien. dañuy <laughs> dañuy mais Juventus mi ngi fa mhm. Milan AC mi ngi fa. les mhm. fans de Cristiano Ronaldo. Mhm. donc ñi ngi fa bëri na ay ay club bu mag Milan AC qui est qui est connu en force. Milan AC euh, quand gis nañu retour bi ñu def donc je crois que gars dinañ ci intéressé wu parce que Serie A championnat la. allo allo allo allo oui. waaw sëñ bi bu baax. alhamdulilah. tur bi naka la ak euh, fan la ñuy woowee. Ndongo Sarr Petersen. Petersen. Ndongo Sarr waaw. Ndongo Sarr Petersen waaw Ndongo. yaa ngi ànd ak ci émission wax sa xalaat. waaw dama leen fekk dem ñu ci dëkk dem rek woote woon naa. dëgg la dëgg la waaw. waxtaan mhm. bi neex na trop. dëgg la kay. neex na trop neex na trop. Mhm. jaajëf lan nga xalaat ci euh, transfert Koulibaly bi euh, Manchester City. Koulibaly dafa baax Koulibaly mënoo lim cinq défenseurs yi gën àdduna bi doo ko si boole mënul mhm. nekk. waaw mënoo ko see boole top cinq mënu see génn quoi. ಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ನಾನು dapat bakar dapat bakar dapat bakar dengan sini tim dapat dia dapat dapat tim lupa d'accord dapat tim dapat pas kami agar jelas tentang order ini dan dan dan dan dan mana yang kamu lupa pas kami suri menemani solo kok d'accord Dari mana kulit dari lesau, tidak kau mangkren, dia dua kali sibuk mangkren, pernah mendengar dengan, ada siapa bahan, pernah mendengar dengan. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw moom la ñu am ren quoi. d' accord. bu demee foofu yàlla bi ko yàlla yàlla na ko yàlla xas kat rek ñu bañ a am ay blessure ba nga am kii mhm. a mhm. merci beaucoup. merci beaucoup nuyu waa Petersen. Euh, il est temps ah Koulibaly zone de confort bi euh, euh, Naples dem dem dem dem City am am lu mu prouver ci li nga xam Premier League saison bi di ñëw dafa nekk saison boobu dafa am importance ci ci ci euh, City am importance ci Pep Guardiola day am importance day am impact kon ci carrière bépp joueur boo xam te dafay nekk parce que Pep bëgg na ñëwaat ci li nga xam de haut niveau bi ci Ligue des Champions ça dit que carré d'as bi wala sax finale bi titre bi itam dafa bëgg a dem nangu jiwaat ko ci ci Liverpool donc dafay nekk nek, ay défis yo xamanté ça va arranger un joueur comme comme Koulibaly bo xamanté ñepp xam nañ ni bu dee duel aérien da koy matal balle au pied daf koy matal duel yi nga xamanté yépp en fait comme ni ko waa ji rek on peut pas citer cinq défenseurs au monde te duñ ko ci mais sur le plan voilà il n'a pas encore gagné des titres. ex effectivement Lolo, tax enjeu enjeu City di ko arrangé. L'Italie, championnat Italie du Ligue des champions du Europa League donc il a besoin aussi. Parce que Khalidou Koulibaly jouait carrière en bon gagné Ce n'est vraiment pas normal. Même à 29 ans, pour un joueur de euh, Moulinek. voilà. donc je crois que tu Allô mhm. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va euh, Ça va bien. Euh. je J'aimerais intervenir par rapport au transfert. D'accord, nous sommes à l'écoute. Ok. je m'appelle Abib Si. Abib Si, oui, Abib. J'habite à Dakar en euh, fait, je trouve que le transfert de Kalidou Koulibaly, oui. et je trouve que Kalidou Koulibaly, déjà, c'est un très bon joueur. Mhm. Mhm. Mais je trouve que son transfert, il est un peu osé de la part de City. Mhm. Parce qu'il faut noter qu'il a, qu'il a 29 ans quand même. Et mettre 70 millions d'euros sur un joueur qui a 29 ans, je pense que c'est un peu osé. Euh, City, eux, ils se battent sur... Euh, leur foot, c'est le défenseur, il doit savoir relancer. Mhm. Il doit savoir relancer. La il relance bien. Stones, il relance bien. Mhm. Je pense qu'ils auraient pu miser sur un joueur encore un peu plus jeune, comme un, comme un Upamecano ou un Marquinhos. Mhm. Et logiquement, ce sera, ce sera, ce sera beaucoup moins que le prix de Khalidou Koulibaly. Mais est-ce que le, volume de jeu de Khalidou Koulibaly n'est pas au-dessus de ces jeunes joueurs euh, si, il est au-dessus de ces jeunes joueurs, mais je pense qu'il faut voir quand même le rapport qualité-prix mhm. et dans la durée aussi. Parce que Khalid Koulibaly, il a quand même 29 ans, il va vers sa 30e année. Pour un joueur africain qui n'a pas retaillé. Qui n'a pas Qui joue avec son âge normal. Pour un joueur africain qui joue avec son âge normal. Oui. Oui. À 29 ans, c'est je crois que c'est logique. non, moi je pense pas. Je pense que 29 ans, c'est je pense que si on l'avait acheté un peu moins cher, ce serait, ce serait logique. Mais 29 ans, quand même, c'est, assez grand parce que un défenseur en première ligue, en première ligue, tu dois avoir un grand volume de jeu pour un défenseur. Mais il a joué 1500 minutes en Série A, 1500 minutes pour un joueur de 29 ans. Sur euh, plus de 50 joueurs en fait en Série A, il se classe à la 32e place. C'est euh. oui. Euh, oui, mais Là, je pense pas que Khalidou Koulibaly puisse jouer plus de trois saisons pleines à City. Oui, mais moi, je vais, vous, faire en fait le tableau. Euh, Guardiola, il a besoin euh, d'une solution à court terme, c'est-à-dire une solution euh, qui pourra donner des, résultats, des résultats positifs dans, les, dans la saison suivante ou bien les deux premières saisons suivantes. Et cette solution ne se trouve ailleurs que sur Khalidou Koulibaly ce n'est pas. Euh, il ne peut pas miser sur les autres défenseurs qui ont 24 ans, 25 ans, parce que ces défenseurs n'ont pas d'expérience. En fait, ils n'ont pas montré grand-chose dans leur championnat. Or, Khalidou Koulibaly, il a fait au moins trois saisons constantes en Serie A. Au-delà de, de son expérience, il y a le talent qui est là, et je crois que c'est un joueur quand même qui peut apporter euh, une valeur ajoutée à cette équipe de Manchester City parce que euh, par rapport aux relances, non seulement l'agressivité de Khalidou Koulibaly, mais aussi sa polyvalence parce qu'il peut jouer euh, peut jouer comme axe gauche, mais aussi comme axe droit. Je crois que c'est un avantage pour Manchester City. Maintenant, est-ce qu'il va tenir jusqu'à 5 ans C'est cette question qu'on doit se poser. Mais pour 3 ans, je crois que c'est logique quand même. Oui, mais moi je pense aussi que il y a, il y a beaucoup de défenseurs de qualité en Europe. Je pense par exemple à, mhm. à, Marquinhos qui est au PSG, il a, il a 26 ans. Oui c'est un défenseur qui a pas mal d'expérience et je ne crois pas que dans le marché actuel, il puisse coûter 70 millions d'euros. Mais tout le monde ne vend pas dans le marché, effectivement. C'est ça, en fait. Marquinhos n'est pas disponible. On ne voit que les défenseurs disponibles. Et or, euh, sur tous ces défenseurs disponibles sur le marché, je ne vois pas un autre qui soit meilleur que Kaldou Koulibaly, à mon humble avis. Mmh. Euh, c'est vrai aussi. Mais aussi, un autre aspect, un autre aspect que je peux souligner, c'est que mhm. Euh, dans une défense, oui. pour avoir un stopper et un qui de jeu. Mhm. Genre, on va dire un patron de la défense et un autre qui, qui attaque. À Liverpool, on a Van Dyke qui lit le jeu et Matic qui attaque. Mhm. Euh, euh, au PSG, on a Thiago qui lit le jeu et Marquinhos qui attaque. Et je pense que mhm. la charnière centrale avec, qui va former avec la porte peut poser un problème. Parce que on ne saura pas qui est forcément le patron de cette défense-là. C'est pas forcément que de Koulibaly ni soit le patron de cette défense-là, parce que la porte, en soi, il est très bien intégré dans cette équipe de mhm. C'est ça que je pense. cette tendance de, stoppeurs et libéraux dans le football euh, ne commence pas à disparaître du moment où maintenant on voit deux, deux, axes centraux qui sont des patrons de la, défense parce qu'ils font, qu'ils font, ils font le même job, le même boulot. Donc je crois que cette tendance commence à disparaître, cette tendance de voir un, stopper et un libéraux. Je crois que maintenant on parle de défenseur central. suis euh, mhm. Mais aussi la politique de la politique que a à chaque fois acheter un défenseur, on va dire dans le court terme. Mhm. Je ne pense pas que ce soit aussi une je judiciaire parce que dans l'équipe, il y a un jeune là-bas qui s'appelle Eric Garcia. Mm-hmm. Eric Garcia, oui. Oui, j'ai entendu qu'il voulait, qu'il voulait partir de City et trouver au Barça. Oui. Mais je pense que si City, avait avaient beaucoup plus appuyé ce jour-là, je pense qu'ils auraient pu le convaincre à rester et à mieux, mieux se développer au sein de ce club. Oui, pour le convaincre à rester, il faut lui donner plus de temps de jeu. C'est ce qu'il recherche en fait. Or, en, prenant Nathan Ake, en prenant Khalidou euh, Koulibaly, on ne pourra pas lui donner autant de temps de jeu qu'il veut. Mhm. Donc, aux joueurs aussi d'aller chercher ailleurs. C'est peut-être aussi ce que Khalidou Koulibaly a compris avec son âge pour demander que d'accord, je veux venir, mais pour 5 ans. Parce qu'en fait, euh, dans les échanges, ce sont les intérêts personnels. Mon cher Javier Zanetti a, servi d'exemple aussi. Il, a joué jusqu'à 44 ans, je crois. Donc, euh, je pense que. Là, on parle d'âge, mais après, ça peut changer. il peut avoir 32 ans et être meilleur avec 9 ans. De vie aussi, le mhm. de l'hygiène de vie, mais aussi euh, de, la façon dont il gère sa carrière. Mhm. Exactement. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'échange. Merci on enchaîne avec un autre parce que euh, tant bien ñu doon waxtaan ak moom yëpp ñu ngi le téléphone bi <laughs> nit ñaa ngi pour dugg mais bon je pense que l'échange échange aussi ça aurait permis aux autres de comprendre Allô Allô, oui salam Malikum salam sëñ bi. maa ngi jégalu de ça, Habib Sow depuis ce qui revient. d'accord Habib. maa ngi seetaan intervention Habib si qui ki dugg léegi ki mujjee dugg. Ah, mhm. bon mu ngi wax ni transfert Koulibaly à City. âge beeg affaire yooyu noonu. waaw un transfert osé il a dit. osé. Mhm. bon ku yàgg suivre City dina xam c'est la première fois City dem jour tel prix ak tel âge. Mhm. boo xoolee depuis Agüero David Silva Fernandinho. Mhm. ba ci Laporte. Stones joueurs yi ñuy doon jël yëpp c'est des joueurs de mois de vingt trois ans mois de vingt deux ans. parce que dañuy doon construire benn équipe. di bëgg joueur di progresser. Mhm. mais résultat bi ñu ci xaar mun naa ne am nañ ko ci niveau jeu mais ci très très haut niveau ci Ligue des champions à chaque fois dañu am défaut d'expérience. Mhm. boo xoolee ba si la porte boo xoolee City ci l'année passée contre Tottenham ak cette année ci ñaari match ñuy perte yëpp ay faute personnel la porte lay doon parce que manque d'expérience da ciy joué ci match décisif. léegi mhm. bu ñu nee aussi il encore rien gagné. Mhm. mais défenseur bu expérimenté la te ragalul un contre un aussi. dafa dafa régulier ci compétition yu mag yi ak Naples. voilà mhm. te en plus si boo xool bii muy jël yëpp daf koy jël en profondeur parce que défenseur yi amuñu rapidité boobu pour jëliwaat attaquant bi bu fekkee dañu leen a jiitu. Mhm. te Kalidou bari nekk na joueur boo xam ne mun na couvrir loolu. malgré que day attaqué mais mun na récupérer profondeur. en même temps aussi di wax ni sur le marché surtout Portes la bëggoon Diego Carlos Skriniar ak Kalidou Koulibaly mhm. ak Nathan Ake boo mhm. waroon ci choisir deux mhm. bon man tey sama naan nataan Ake recrue bu baax la parce que vingt quatre ans la am d'ici deux ans trois ans day day taxaw day imposé wu mais comme li nga wax sànq ni Koulibaly pour régler des problème ak assurer benn affaire pour deux ou trois ans après nga jaay ko mu dem mais boo xoolee Puerto tey jii Koulibaly moo gën. Mhm. Diego Carlos aussi amagul expérience niveau niveau la porte la. Mhm. Skriniar aussi point de vue relance Koulibaly moo ko supérieur. Mhm. voilà man je très bien que ni Koulibaly mën na réussir à City. te aussi sànq kii souligné ne lu am solo nee na vingt neuf ans ba pare âge normal aussi. tey bu ñuy wax ñun ñëpp sport sénégalais football xam nañ ni gars yi nekk fële au moins tàgg nañu moins cinq ans jëm jëm kaw. moo leen sonal ñoom ñëpp. voilà te malgré sa yaa ngi gis ñu ngi ñu ngi développé par exemple ku fi am vingt neuf ans tey sa âge normal en tant que africain waaw dese nga cinq ans sa kanam yoo xam ne mën nga ko assurer aussi. Mhm. sincèrement bon intervention bi mu def baax na trop mais aussi souligner que ni Koulibaly c'est un grand grand grand défenseur. Mhm. D'accord. voilà merci maa ngi jégalu si guddal bi aussi. Mhm. merci beaucoup. Mais non, solution pour urgente là, euh, ci ci cas bi nga xamante fa la euh, Manchester City tolu. loolu la Pep Guardiola comprendre ba tax mu insister ci ci ci dossier boobu non, il faut savoir que ni Naples euh, taille 100 millions le jóge woon jékki-jékki mu ni 80 millions ba accord bi bi ñu ko ça trouvé sax da doon ci 80 millions jël ko Allô? allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ yàlla man maa leen di ziar yow maa ngi dugg depuis Espagne. ñu ngi delloo ziar. Ibu ah? Ibu. Ibu Ibu Real Madrid. waa gis nga Real borom couleur yu weex baax a baax vraiment tey moom dama am mbégte quoi parce que Kalidou Koulibaly moom sama jour la quoi dama ko bëgg sama xol. Mhm. si waaw vraiment tamit di rafetlu tamit si comme transfert bi ñu def si moom parce que tamit il est temps pour mu jige woon naabul quoi di di parce que tamit bu xoolee li mu bëggoon wax yëpp avant kii dugg léegi daanaka wax na lépp mooy avant kii dugg léegi quoi waaw di di ñaan yàlla rek buñ demee tamit xam nga yàlla fa yóbbaale tamit wërsëg pour mu gagné fa dara parce que c' est un grand défenseur boo xamante ne il mérite beaucoup te chose mhm. xam nga waaw di ñaan yàlla tamit euh, entraîneur bu fa nekk Guardiola xam nañ ko bu baax mais di ñaan yàlla tamit yàlla na ko Koulibaly tamit jik quoi parce que tamit dafa doon entraîneur boo xamante ne dafa ji koy kàkkatar la yool daal xam nga <laughs> day tee xel daal tey day mel ni suba waaw tey day mel nii suba mu mel ne la xam nga yaa nekkoon na Barcelone nekkoon na Bayern xam nga jaar nay équipe yu bëri xam nga. Hmm. yàgg nañ ko suivre yàgg nañ ko seetlu yàgg nañ seetlu tamit ay ay gestes yu muy def tamit quoi xam nga. Hmm. est-ce que du dafa exigeant. waaw di ñaan yàlla rek. non du question non du question ko existant xam nga rek am na loo xamante ne bëgguma sax di ci sori wala muy émission bi xam nga ñu ciy boole leneen mais yooyu yaa ma gën a xam daal. Mhm. parce que nekkoon na Barcelone jóge fa dem Bayern jóge Bayern dem City benn instant daal ci ko kàkkatar la yor ça dafay am benn jeu bu nekk si moom côté raciste daf si day day génn si moom tuuti quoi parfois moo tax ma ne yàlla naa ko Koulibaly yóbba waale foofu wërsëg. amiin si ñu ñaan yàlla tamit mu jikko club bi jikko vraiment c'est une grand défenseur man moom dafa yàggoon nekk sama réew man su ma sañoon Koulibaly Real Madrid lay ñëw ma teg ko moog Sergio Ramos. Mm. Mm. <laughs> ndax xam naa catalan encore moo tax. yéen yéen yéen bi di ñaan yàlla tamit balaa demee ni yàlla defar ko télé quoi xam bi rafet na trop man du ma yàkkamti lu dul heure bi jot ma li ma bëggoon wax yëpp avant dernière. Mm. ki mujjee dugg wax na lépp loolu laa bëggoon wax quoi heureusement wax na ko te su ma ko waxee répétition lay doonaat quoi. d'accord merci Ibrahima. jërëjëf jërëjëf. Mm-hmm. Sadio Mané Barcelone xaar leen rek yéen waa <laughs> ñu enchaîné ak beneen internaute allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi fii sëñ bi. Ah, maa ngi tudd Cheikh. di leen woowee Pikine. Cheikh depuis Pikine. waaw. d' accord Cheikh yaa ngi ci biir émission bi yow la ñuy déglu. Ah, macha allah waaw comme ci transfert Kalidou Koulibaly. moom la ñuy waxtaanee. Ah, ok waaw dama dama man. pour man ñoom ñaar ñëpp da leen arrangé quoi gagnant gagnant la. Mhm. pour man. Mhm. waaw ndax ndax euh, Manchester City fu mu toll nii dañoo am problème défense. Mhm. waaw te fu ne nii défense moom Marseille dafa manqué défense boo boo xoolee Guardiola parce que système défensif bi ñu joué nag dem na bay jël milieu terrain Fernandinho. di ko fubal euh, défense. waaw mais boo amee Koulibaly loolu noonu daf koy arrangé waaw bu amee Koulibaly moom day baax moom Koulibaly tamit fi mu toll nii ak âge bi mu am vingt neuf ans. Mm-hmm. donc donte vingt neuf ans âge boo xam ne la ci koy wax ci la défenseur bi ñoree fa lay gën a baaxee ndax dina am expérience te Koulibaly fu mu ne na niveau yëpp. Mm-hmm. rek moo ko def. Mm-hmm. moom bu ko waxee bu ko waxee moom lool noonu challenge boobu arrangement am dafa ba pare tam dina dégg prise de championnat xam nga dinañ ko gën a dégg. waaw def nga moom choix bu baax la quoi bu fekkee concrétiser nañ ko moom gagnant gagnant la quoi. d'accord. ok merci. ok merci beaucoup cher. Mhm. Un transfert osé pour certains, ni un transfert gagnant-gagnant. Pour les balais de ci gagné, euh, c'était gagné. Allô. Allô. Waaw, est-ce que mën nga wàññi retour bi pour mën a déglu kooku Sakho. waaw man. <laughs> saaxo ci loolu ne. yéen a ngi reetaan. ah. allo. yéen a ngi reetaan de mbaa jàmm. <laughs> jàmm nafi nafi ziar naa la mais nafi de mais da ngeen sàcc tem bi ah da ngeen sàcc tem bi. waru ngeen teg tem ah démb démb lu ngeen defoon loo nga waroon defaat tey ah da ngeen da ngeen def thème bi du nii ah. ah ana mayo bi ana bayaar <laughs> na. thème bi lan la waroon ana bayaar na ana mayo bara. final bayaar ah, na sëñ mayo bayaar bi. <laughs> Eh, suba dinañ voilà suba le vendredi suba dinañ ci ñëwaat. <laughs> suba dinañ annoncé final bi. dinaa ko dóor ba mu xool ba mu ba mu xam ne que final du noonu. mais mais mais mais Sakho. waaw di ziar ñëpp. li ma la waxoon du daj de. Lyon Lyon ñoo ñàkk personnalité rek mais Lyon waroon na waroon na gagné Bayern de. moom nee na du bàyyi. <laughs> ma xamala xamala xamala laa lay ñaan nag. Lyon na sant yàlla bu dugalul bu dugaloon rek am problème. ba mbàcc mi gerte bu dugaloon rek am problème bu dugal <laughs> bu bu dugaloon rek mooy xoolal. bu dugal dama ragal bu bu marché bi jeexee ñu tas équipe. xam <laughs> Barça Barça dafa dëgër bopp dugal ñaar. waa ñu ñëw fekk fa huit. bu Lyon dugaloon dix la jëm. ah xam nga gars yi ñu dem dañ ko bàyyi dañoo bàyyi dañoo bàyyi Lyon bal bi bal ñuy tëlli tëlli. ñoo xam nañ ne xam nañ ne dañ leen di dóor Lyon sax ci boobu xam ne ne Bayern da koy dóor. ah mais Bayern tàngul noonu nag de nekkete. laa ilaaha illallaah nafi bàyyi ba final bi di nga gis ay biddéew bëccëg dañ bàyyi ba suba comme que suba dinañ ci wax kay. non suba suba dinañ ci Kalidou Koulibaly macha allah. dina li may ñaan kay yàlla na tombe euh, nu mu tudd Sadio Mané mu dem Real. Hmm. loolu laay ñaan yàlla ndaxte Kalidou Koulibaly euh, City. Hmm. Hmm. Sadio Mané United. Euh, Liverpool Kalidou Koulibaly City Sadio Mané Liverpool. ah dina am lu may metti de. du tax. ma ne ko dina am lu may metti de ndaxte ah sama défenseur ak sama attaquant sama sama défenseur ak sama damay naan sama sama sama sama attaquant. Ah? Hmm. ñoo war a mais nag euh, li may ñaan rek na dem na bu fekkee City City kii na moom mun na dem City alo waaw ñu ngi lay dégg. sama ligne bi baaxul quoi. allo ngi lay dégg ñu ngi lay allo. moom moo ñu dégg tul fu mu ne nii. alo waaw. ñu ngi lay dégg bu baax. réseau. Euh, man de dégguma leen bu baax mais maa ngi ci wax ñaari baat rek. Mhm. Kalidou Koulibaly li waa ji génnoon sànq avant ki génn li mu ci wax yëpp wax dëgg yàlla luñ ci teg rek dañuy nax suñu bopp. Mhm. li mu wax rek mooy dëgg. Mhm. âge bi nañ ñaan yàlla mu teel a dem ci club bu mag ku mel ni City ndax City instant yi xam naa ne déwén bu ñëwee comme que yegg na quart de finale euh, demi finale euh, quart de finale ren. Mhm. Mhm. déwén xam naa ne yàlla dina ko suturaal ñu ñu ñu jël trophée bi quoi ndaxte soxla na ko trop Guardiola. mais nag saay saay la nag dafa nekk ni koo xamante ne ñëpp ko xamee ci côté raciste tu ma côté racisme d'accord accord boobu rek la am tiitaange touti rek. d'accord ma ci torop côté racisme bi la xaw a la am la hein d'accord ma ci torop parce que eh, mok mook Yaya Touré Guardiola ak Yaya Touré. mais mais Yaya Touré. non du côté bala Guardiola di ñëw. du côté Yaya Touré rek. Yaya Touré bala Guardiola di ñew City. non amul lu ko yaxul xaaral bi mu jugee Barça dem City bala Guardiola di ko fekk ci City Yaya Touré amul. lu mu waxul Guardiola far nak yalla def ñoom ñaar ñu dajé bir city mais c'est tout à fait normal bu ñëwé mu indil ko guer dafa doon wax dafa dafa nek nekk Barça mu wax ko déclaration yu mu def ci mom yépp ñu dajé nak ñu dajé bir city nak bobu yoron nako Barça mais c'est tout à fait normal bu ko yoré bu éto bi mom peut être sax mën nañ wax né bobu xam nga am nañ ci mais yaa Touré. voilà xam nga problème bi xam nga problème voilà xam nga problème bi. Mhm. wallahi déglu na la xam nga problème bi bu fekkoon Yaya Touré rek la mëna wa mais éto xam nga éto moom dëgg yàlla bosam moom c'est flagrant Eto dem na ba toog plateau nettali seen histoire. Mhm. nga xam ne sa waay moo ko toj. waaw tu vois mhm. ah. boo demee ba Eto ci boppam mu toog King Sport nettali histoire bi ñu seen histoire ñoom ñaar nu mu demee mais man gis ma fa leneen lu dul racisme du ñàkk euh, compétition du ñàkk euh, dara ci Eto <laughs> ah. Mhm. donc man daal loolu rek côté boobu laay ñaan parce que man dégg ma leen bu baax li may ñaan rek mooy na dem siti ci jàmm. <laughs> ah. Mhm. te mu bàyyi ñu jëlaat ligue de euh, championnat bi. Mhm. na bàyyi ñu jël championnat moom mu jël ligue de champion. moom mu jël ligue de champion. <laughs> waaw mais mais sëñ Diop ndax bëgg naa tegle championnat bi. Sadio Mané Barça la. Diop yàlla yàlla bu mu dem Barça na dem Real. Hmm. Ah, yàlla bu mu dem Barça. Barça lay jëm ni yéen non dem Real <laughs> yàlla bu mu dem Barça. <laughs> loolu ka moo ko wax. non que commande mi ngi Barça léegi te commande la ko yoroon. waaw waaw mais mais commande yor na ko rek taxul mu def parce que parce que daa am parce que daa am ñu boobu piste boobu leer bu soobee mhm. yàlla <laughs> loolu dinañ ci ñëwaat incha allah. <laughs> na dem Réal na dem Sadio foo ma lijjanti numéro foo na dem Réal. <laughs> na dem Réal même Barça de. yow da nga waxoon da koy jaral dem ba Angleterre ko toog moom wax wax ko ngeen woote yee ñaar ci. naa ko def eh, xalaat xoolal su mu naa ko def naa ko def. taay dama bëri ne war nga mën a digga def taay dama bëri job rek ngeen woote en direct ci biir émission bi. barki Cheikh dinaa ko def c'est dama bëri job rek. Mhm. dinaa ko def de. non boo amee vacance yow demal. dinaa ko def nga nekk suñu correspondant sax. <laughs> non du ma fa yàgg nag Angleterre dafa métti de <laughs> man France laay liggéey. <laughs> yow demal suba daal parce que na a wax mais wax ji day dagg di ñëw suba incha allah dinaa jël sama temps ñu wax parce que damay dara. d'accord

non c'est-à-dire que xam nga luy problème mu PEP PEP dafa dafa am touti caay-caayam tamit ci ci ci technicien. Mhm. c'est-à-dire que PEP moy genre bi nga xam te du bayyi dara. perfection la voilà du bayyi dara mu jall perfection la xam nga nak voilà ñu nam dañuy wut perfection duñu bayyi ben détail. il paraît que ñom mook euh, Klopp mos nañu toog ñu né 15 minutes lañuy ñuy waxtaan comme lu mu def ak euh, Zidane la fois passée. Mhm. Euh, waxtaan bi mu mujj yegg 1h30 1h30 minutes. parce mhm. que moom chaque fois bu toogee rek benn ci football waxtaan ci football perfection la bëgg day bëgg lépp baax. non c'est un technicien qu'on qu'on aime bien Pep moom technicien la boo xamante kenn dootul naatable euh, fi nga xamante fa la fa la toll en fait. il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. bien vrai que ni euh, club moo xew temps yii nii euh, mais je pense que ni tey dina mën a def ak koo xamante comme Kalidou Koulibaly la parce que man Kalidou Koulibaly comme ni muy joué moom tam perfection lay wax. allo. allo. oui sëñ bi na def. allo. oui. alhamdulilah. tur bi naka la fan ngay woote. na ngeen def yéen ci jàmm. PMD la PMD. PMD ah ouais. youtubeur. allo. PMD am décalé. allo. oui yaa ngi dégg bu baax. waaw maa leen dégg bu baax a baax. waaw mu ngoog yaa ngi ci biir émission bi. waaw maa leen di nuyu émission bi maa ngi ngi lay fay bu baax. noo gisee thème bi tey. thème bi waa thème bu am solo la de. Mm-hmm. te yaakaar naa ni Koulibaly il a intérêt à quitter Naples bu bëggee gagné ay trophées. Mm-hmm. fàcc. Mm-hmm. te yaakaar naa ni bu fekkee dañuy wax man si rek mais Koulibaly. c'est le défenseur qui marque, qui manque à, à tous les cadres anglais, à Bohol, Manchester City, Liverpool, Trophy, qui l'équipe Botiban, il te il te manque son qualité de balle. Klopp boo ko un téléphone sax. kon ça veut dire que gars ils soxla nañ ko bu baax. non quatre équipes viennent au sol Pourquoi ko di dans les dans les équipes am équipe donc je me dis que quatre équipes yooyu fu mu ci dem rek fu mu ci dem rek il va il va faire du talent te Guardiola maa ngi dégg léegi ñu wax affaire de genre peut-être raciste ou pas mais ce qui est sûr mooy que c'est Guardiola qui a besoin de Pape Diouf waaw c'est y a ça aussi dafa impliqué wu ci dossier bi quoi. boo xoolee face à Lyon. Guardiola il a il a manqué un en défense pour pour éliminer Lyon xoolee face à Monaco bi ko Monaco éliminé face à Tottenham aussi loolu Koulibaly moo ko manqué donc bu ñëwee man na ko permettre mu mu atteindre pourquoi pas une finale de Champions parce que Koulibaly da nga koy da nga koy booy lim da nga koy lim ci côté en défense. Mm-hmm. yaakaar naa ni. c'est un plus pour City. Ça, ça va être un plus pour Koulibaly parce que maintenant gagner un titre, mais ça va l'être un peu plus pour Manchester parce que City avec Koulibaly, ils vont faire du sale. Normalement, parce qu'offensivement, ils sont très très forts. Mm s'ils n'ont pas gagné le championnat, c'est en grande partie grâce à ça parce que ils perdent des matchs défensivement, ils n'étaient pas bons. D'accord. Koulibaly, elle l'apporte dans une défense. Waouh! C'est du solide. c'est bon. loolu loolu caaxaan loolu défense niveau top top mondial la. Mm-hmm. donc je me dis que il a intérêt à à mm-hmm. d'accord. parce que l'occasion ne va pas représenter parce que il a vingt neuf ans. bu mm-hmm. xoolee ba ren debout mooy loolu de gars trente ans gars yi la jënd ils vont pas mettre de l'argent. d'accord. xalaat boobu daal laa ci amoon Kalidou Koulibaly. merci beaucoup PMD l'expert. allez am solo recommandation coach je crois que joueurs yi war nañu quand même di di def ay jaloore pour que coach bu mag mën la recommander ci équipe mhm. sinon li dal Papy Djilo Bodji bi muy dem Chelsea moo lay dal nga dem ba mhm. foofu Mourinho ne moom recommandé wu la mhm. xam nga parce que tojoo fenn jóge nga naat dem Chelsea rek moom mu ne xamul la recommandé wu la donc ku ci mel ni Koulibaly Guardiola moo ko bëggal boppam cest à bu ko indee par avantage ci mom day am day progression la ci mom da mhm. xam nga donc je crois que coach bi bu le recommander chaque fois dang ci loolu mo dal Sadio Mané ak Klopp depuis que bi muy nekk dootu mun daf ko daf ko yàgg piste soxla ko donc je crois que coach mom bu lay suivre ba soxla la rek bu la indee y a plus d'avantage que yow bu fekkee ay dirigeants ñoo la ñoo la indi su boobaa il faut il faudra faire plus d'efforts pour mhm. wan coach bi pour convaincre ko pour mu lay jouer -hmm. alors que bu fekkee moom mo recommander nga ñëw su boobaa c'est plus facile pour toi. et loolu yëpp prestation yi nga xam te moom ngay def euh, ci ci nga koy mën a amee je pense que prestation yi nga xam te moom la Kalidou Koulibaly def autant ci biir euh, série A bi mu def ko itam ci ci ci Ligue des champions bi def ko peut-être ci Europa League bi loolu yëpp moom moo tax tey jii nii mu egg fi mu egg foofu laa doon waxee que ni du am euh, peut-être certaine pression bii nii. di liggéey ak ak ak Pep Guardiola parce que gis nañ ni c'est un jour boo xam te déjà discipliné na respecter nos entraînements. entraînement on l'entend pas ci yenn mbir yi nga xamanté dang koy déglu en tout cas question de discipline et autre chose mhm. nek na joueur bo xamanté itam dafa régulier je pense que nous était blessure yi nga xam te am na ko euh, durant saison bii nii wala impact bi nga xam coronavirus bi am na ko ci valeur marchande joueur yëpp d'autant ci surtout joueur yu mag yi euh, Koulibaly euh, tey duñu wax ci ay mbiram à 70 millions d'euros lu ëpp ëpp ëpp loolu la ñuy waxtaan moom pour man dire que 70 millions d'euros voilà dès que 70 millions d'euros c'est osé ñu jël ko def ko ci joueur bu am am am 29 ans euh, c'est parce que tay corona mo fi jaar mais bu nekkul won corona bu nekkul won saison bu difficile bi nga xam te joueur yi dund nañ ko saison bi ni donc Koulibaly 90 xana Fallait, fallait fa fa donc c'est un joueur boo xamante voilà 100 millions d'euros ou rien mhm. et lui aussi il a compris parce que je pourrais terminer ma vie ici bien vrai que personne n'était avec n'était d'accord avec lui sur cette déclaration mhm. mais ça dit que tu stabilité bi nga xamante am na stabilité imposer quand il dit que je veux 5 ans euh, biir Manchester City mhm parce que constance aussi ci ci ci ci ci performance dafa am solo ba bu jugee City mu amaat tamit benen club bo xamantene dafay toll noonu bu ko Guardiola changer le poste parce que gis nañ mu jël Philippe Lam jëlé ko <laughs> latéral indi ko milieu de terrain donc boobu laa jombi woon rek boo xam dafa manqué bagage technique mhm. donc je crois que Lolo waral sax Guardiola mu vraiment mu bugg ko indi ci club bi parce que euh, côté sur le plan du jeu dafay mhm. am lu muy apporter mhm. asalaamaaleykum maaleykum salaam Allô Allô mm-hmm. Malheureusement, on l'a perdu. Mmh. Salam alaikum Nemes. Mm-hmm. <laughs> donc ce sera un bien fou pour euh, Manchester City ñu am euh, Koulibaly ci seen biir effectif euh, dina avons a rivalité bien hein, saison prochaine diggante Koulibaly ak Sadio allô assalamu alaikum. alaikum. salam Euh, man maa ngi suivre seen émission bi vraiment am na solo te neex na trop sax. merci beaucoup tur bi wala Ismaïla Jammeh depuis Italie. d'accord yaa ngi ci biir. waaw waaw euh, ñun moom lu ñuy wax d'abord ci Koulibaly xanaa heure bi dañ koy jooy d'abord. waaw waa Italie. Mm-hmm. waaw Italie waa Italie dañ koy jooy d'abord surtout sénégalais yi dañ koy jooy d'abord bara moo dem. Mm-hmm. waaw euh, côté social bi vraiment da doon jàppale fi sénégalais yi lu bari. waxuñu ci côté football bi moom vraiment ba affaire la si ñun. léegi nag euh, côté City moom gis nañu vraiment mi ngi dem fekk entraîneur bi nga xam ne entraîneur bu bëgg football bu may def bi. Mhm. défenseur buy teg ballon. Mhm. te yaakaar naa ne Koulibaly au niveau de City euh, City am na fa milieu terrain wala ak ay yi nga xam ni vraiment moom day dem compléter équipe bi. Mhm. ndaxte City manqué woon na joué bi nga xam ne bal bi ci défense bi la jógee doo doog a yéeg enfin dañoo mujj jël Fernandinho yóbbu ko à la défense. Mhm. pour bal bi mën a démarrer foofu. Mhm. te Fernandinho milieu terrain la. te yaakaar naa ne bu amee Gundogan ak euh, Fernandinho ci kanamam wala le jeune Rodri boobu yaakaar naa ni euh, City dinañ ne en fait à la la ñuy football tiki taka boobu ndaxte bu kii loolu lay xaar ci moom. Mhm. waaw football bu rafet daal yaakaar naa ni incha allahu rabbi ren saison bi dinañ ko gis bu baax a baax au niveau de City. d'accord yaa ngi doon wax léegi lu am solo nga ni euh, foofu sénégalais yi euh, dinañ dinañ jooy Koulibaly jóge Italie dem Premier League ndax euh, ay action sociale yoo xam te daf ko doon def foofu est-ce que mën nga ñoo defal témoignage par rapport ak loolu ñu xam yan genre action sociale la c'est un sujet boo xam te dafay intéressé wu sport ñu xam sportif yi nga xamante ñi ngi fii sportif sénégalais yi action sociale yi nga xam te ñu ngi koy def waaw action sociale maanaam yu ñu wax yu muy def maanaam tey bu ñu nee ay gàmmu am na. Mhm. bu ñu nee ay euh, màggal Tuuba am na. Mhm. wala daayira sénégalais yi fépp fi nga xam ne surtout ma temps Covid bi sax. Mhm. am na yu bëri yi nga xam ne ndaxte moom du bëgg mukk ñu ne Koulibaly moo ko def. mais enfin ay sénégalais ay mag yi nga xam ne vraiment ñoo jiite daayira yi ñoo jiite association yi. ñooñu naan Kaliou Koulibaly moo ko def mais du bëgg kenn wax tuuram daal. waaw. vraiment affaire sociale bi rawatina ci hôpital bi xale bu jigéen am na mu ko mu demoon fekk ci hôpital bi. Mhm. ba ko jox lu mat presque une valeur de dix mille euros. nekku doon sénégalais sax. Mhm. mais africaine la woon mais vraiment affaire boobu dafa yéen ñëpp daal. Mhm. ndaxte yaakaar nañ ni mooy mooy footballeur bi nga xam ne moo gënoon tranquille euh, biir Napoli boo daal dëggee Napoli en plus euh, dëkk bi nga xam ne nekkul dëkk bi nga xam ni joueurs yi euh, am nañ tranquillité boobu ci biir dëkk bi. parce que souvent dañoo saccagé seen i kër gis Koulibaly six ans yu mu def en Italie kenn mësul saccagé këram. voilà ndaxte en fait muñ dem nit ñi dañ leen naan sax en fait est ce que nekkul supporters yi sax en fait ñooy ñooy reste sécurité am. te dañ la mais en fait dañ ko jàpp ni doomu Napoli en fait. waaw jàpp lañ ko doomu Napoli ndaxte vraiment xam naa ni moom départ am fii moom gars yi heure bi ndaxte à part xam Koulibaly la quoi. d'accord xam si lu mu fi amoon Koulibaly bu ñu ko am fii daal. Mhm. d'accord. waaw waay. merci beaucoup maa ngi rafetlu bu baax a baax seen émission. Mhm. waaw di leen suivre vraiment dama leen di suivre chaque fois. jaajëf kontaan nañ bu baax. waaw waay kontaan nañ maa ngi gën a kontaan bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. Mhm. lii dafay dafay firndeel sànq li ñu doon waxtane par rapport ak euh, personne bi mhm. personne de Koulibaly bi avant mhm. joueur bi mhm. euh, li limuy li muy dund loolu lay indiwaat itam euh, ci match bi moom moo nekkoon suñu dernier intervenant ci biir émission ma bay la nga résumé peut-être thème bi comme on avait l'habitude de le faire d'accord oui bon je crois que waxtane bi frankulaayu lay do mën parce que euh, transfert de Kalidou euh, Koulibaly avec euh, Manchester City c'est presque fait donc mhm. nekk na sujet un sujet ne depuis, depuis comme nous l'avons ko depuis des mois mhm. ah, je crois que nous nañ sax benn wax sa xalaat mhm. Kalidou Kalidou Koulibaly ndax dafa war Manchester City ou pas donc il y a des négociations demee négociation entre les deux parties et que gis nañu 70 millions d'euros euh, moom mooy offre bi nga xamante ne ni pour que le défenseur sénégalais mu rejoindre euh, Manchester City c'est quand même euh, un avantage pour lui parce qu'on sait que en Premier League il pourra gagner des titres avec ce club. En mhm. plus, il, va trouver un très grand coach, même au fait qu'il il était entre les mains de Ancelotti. Mhm. Donc, il ne fait que Pep Guardiola, sur le plan du jeu, apporter valeur ajoutée mhm. Manchester City. Donc Khalidou Koulibaly, un très grand défenseur qui va, qui, qui, qui va quand même euh, faire de bonnes choses espérons bien avec euh, Manchester City et que accord bi dinañ ko finaliser. Mhm. Euh, récemment ci prochain jour yi mu rejoindre fi nga ni mom moy Angleterre Angleterre. Mhm. on espère bien euh, reprise li nga xamanteni modi Premier League bi dina fekk Kalidou Koulibaly egg Manchester City kon internet yi li moo nekkoon wax sa xalat bi tay di len ni Canal Plus Sénégal mon moo ñu accompagner ci émission bi nga xamanteni modi wax sa xalat ñom nak ñi ngi nekk en promo ba le 31 août décodeur bi 1000 francs lay jar 1000 francs c'est nga eh, Ligue des champions li nga Europa League eh, championnat que ce soit Premier League ak eh, A ñom ñoo bokku mois de septembre reprise bi mais championnat bu France ñing di dig dajé de 16 au revoir